Sunugal 24 point net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à valeur c'est ici même Sunugal 24 point net. asalaamaaleykum maa ngi tudd Mamadou Dieng nekk membre cellule des étudiants République des valeurs. en même temps membre réseau des jeunes engagés de la de République des valeurs waa ñu ñëw tey fekk la fi nga organiser benn séminaire ci euh, ak la jeunesse de République des valeurs euh, lan mooy euh, lan mooy njëriñu séminaire bi nga xamante ni moom ngeen tëgg fi tey. waaw xam nga le président Thierno Alassane Sall moom dafa gëm ndaw dafa gën gëm jeunesse gëm ay étudiants moo tax dafay insister ci formation wu jeunesse bi séminaire bi leen dong la. pour jeunesse bi ak étudiants yi surtout ñu xam lan mooy le militantisme ñu xam lan mooy ndaw ndaw yi lan mooy seen rôle ci parti wala lan mooy seen rôle ci mouvement ndax gis nañ ne la plupart des gens ou bien la plupart des jeunes dañoo fuir les partis dañoo fuir ay mouvement parce que il croient que les vieux ñoo fi nekk sont des beaux parleurs nekk fi expliqué wuñ gars yi lan mooy au fond lan mooy militantisme ñun nag suñu parti ak suñu mouvement République des valeurs dañoo bëgg ndaw yu si nekk xam lan mooy le militantisme ñu ñu di ko doxee si valeur di ko wane si valeur ba nga xam ne ñeneen ñeneen ñi dinañ ko roy si ñun wala ñëw adhéré suñu cause waaw séminaire bi nag réseau des jeunes engagés de la République des moo ko organisé benn la réseau la boo xam ne dafa présent dans toutes les universités publiques et privées du Sénégal ba Saint-Louis si biir séminaire bi am na ñu jóge ba Koungheul jóge ba plus fond du Sénégal fu lañ jóge ñëw pour fekkee tey tey bés bii ni nga ko gisee dafa fees dañoo limité nombre place yi waaw ndax république des valeurs moom en en avant en marche lépp si valeur. yan ponk ngeen fas yéene former jeunes yi nga xamante ni ñoo fi nag. non première formation bi moo nekk lu ñu tuddee développement personnel ndax jeunes yi dañoo war am esprit de dépassement war a xam lan moo leen leen war si si si dëkk bi thème bi moo nekk la jeunesse le militantisme affirmé et comportement républicain. waaw ndax ñun moom comme nu ko suñ président Thierno Alassane Sall di ko waxee dañoo bëgg a nootu notre parti républicain mais si jeunesse bi la koy commencé waaw. réewu ngor république de valeur ndax mën nga ñu ñëwal un rek ci tënk eh, kàddu yi nga xamante ni moom ngeen tënkee seen parti bi lu waral choix yi. waaw soo gisee si parrainage bi laay wax gis nañ xaalis bu bëri koppar bu bëri boo xam dañu doom jënd ay conscience si parrainage bi mais république des valeurs defu ko loolu valeur la. at tamit lu ñu tuddee lii du lii du valeur tey gis nga si si net bi benn benn chauffeur xaw ma chauffeur xaw ma apprenti di saw si mbedd mi loolu est-ce que valeur la waaw donc ñun moom si ngor at si valeur la ñuy la ñuy tënku ngor mooy du ñu achat de conscience loolu la ñuy woote te ñu ngi si wuyu bu baax valeur nag mooy jeunesse bi dañoo war am benn comportement boo xamante ne duñ duñ def yenn yi si mbedd mi ndax Sénégal suñu Sénégal lañ citoyenneté travail loolu lañ gëm te si lañ si lañ nekk waaw ban bataaxal nga am pour euh, ndaw Sénégal. waaw nañ engagé wu quoi nañ engagé wu ndax comme nu ko benn France di waxee chaque génération doit trouver sa mission soit il l'accomplit soit il la trahit si nous croisons les bras et que nous à la résignation nous serons forcément des complices le changement doit commencer par soi-même à travers l'action ñun République des valeurs commencé nañu ay action te nañ ñu xaar si région yëpp la ñëw lii nit dañ ko organiser si région yëpp nañu ñëpp nañu ñëpp xaar te xam ne daal République des valeurs si kaw si si kanam dere notre président Thierno Alassane Sall. Mon nom c'est Mamoudou Kouaté, je suis membre de la République des valeurs, je suis aussi responsable politique dans la commune de Grand-Yoff. Alors, euh, vous avez organisé aujourd'hui un séminaire pour euh, la jeunesse des Républiques des valeurs. Pouvez-vous revenir sur euh, l'essentiel ou l'importance même de ce séminaire d'aujourd'hui C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse est arrivée à un point culminant dans l'histoire politique du Sénégal. Et c'est normal aussi. tant que parti politique, qui nous, nous nous sommes dans les valeurs, c'est normal que nous puissions donner des outils qui puissent permettre à nos jeunes d'être performants et de pouvoir faire face aux à nous par rapport et dans ce cadre-là qu'on s'est dit que nous formation, un un week-end, les 48 heures universitaires, dont, qui est de séminaires, par, de séminaires dans le leadership surtout euh, a, qui a comme thème la jeunesse au service la République Alors, euh, pouvez-vous revenir sur la cible Est-ce que c'est tous les membres de République des valeurs ou c'est justement la jeunesse ou même les étudiants Bon, nous, nous sommes dans une logique de, de servir le Sénégal. Nous ne sommes pas dans une logique de servir uniquement les jeunes de la République des valeurs. Donc, le, la cible, elle est ouverte et c'est tous les universitaires, tous les jeunes du Sénégal pour prendre part euh, à ce séminaire-là. Pourquoi le choix sur les universitaires Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, les universitaires sont carrément la matière première, on peut dire, ou la tête pensante du pays. Donc c'est tout légitime que nous puissions aussi orienter cette jeunesse-là pour que cette jeunesse puisse être performante et surtout sur le plan politique, que cette jeunesse puisse faire de la politique avec des valeurs telles que l'engor, telles que le respect de la parole donnée et telles que aussi, tel que aussi l'engagement et aussi la citoyenneté. Vous pensez que cette jeunesse-là peut être le relais aujourd'hui, politiquement parlant, euh, pour euh, amener le message du président Tiano Alassane partout dans le Sénégal ou partout dans le monde je pense que là, là, là aujourd'hui, les Sénégalais savent qui est M. Tcherno Sansal, ils savent qui est le président de la République des valeurs, ils savent aussi l'impact que cette personne à la République et aussi les défis qu'il a eu à relever. Une personne qui est en mesure aujourd'hui de sacrifier, entre guillemets, tout son bien-être, son aisance familiale, pour uniquement défendre la République, je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais doivent diriger un modèle. Et c'est tout naturellement que nous, nous pensons que ce combat-là est avant tout le combat des jeunes. Donc ce sera aux jeunes de porter ce combat-là. Et les, et les jeunes le font déjà. Alors les perspectives après ce séminaire d'aujourd'hui, c'est quoi nous allons continuer dans la même lancée, essayer de faire le message puisse passer, pour que la, le message de M. Tchern al puisse réellement continuer aussi à, à être écouté et que lors du choix ultime, que les Sénégalais puissent voter pour le président Tcherno Al Sall. Parce que nous, nous considérons que, certes que le parrainage est un filtre qui est fait à l'égard de ces personnes-là, de ces nouveaux types, disons, de candidats qui ont une autre carrière que ce qui a toujours été fait. Mais maintenant, ces personnes-là, nous, nous, positionnons directement vers le message et vers les élections. que pour nous, le parrainage n'est pas un défi à Donc nous, notre défi, c'est que les Sénégalais comprennent réellement le message de M. Sall, le message de M. Tcherno Al-San Sall, et qu'après, au moment de faire un choix, qu'ils puissent naturellement choisir M. Tcherno Al-San Sall. Alors, puisque vous avez parlé de parrainage, je vais en parler. Alors, avez-vous déjà bouclé le nombre de signatures euh, pour le parrainage Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, n'a jamais été un défi pour nous. Parce que M. Tiana Sansal, je ne sais pas par rapport aux autres candidats, mais en tout cas, lui, il a fait la grande majorité des régions du Sénégal. Aujourd'hui, la République des valeurs est présente partout dans les régions du Sénégal. Donc, comme je, je le répète encore, le parrainage n'est pas un défi pour nous. Ce n'est pas à notre niveau où le parrainage problème. Nous, notre logique, comme je, comme je l'ai dit tantôt, c'est plutôt faire comprendre et faire passer le message de M. Tchern Al-Sansal pour que lors, lors, de la journée du 24 février, que les Sénégalais puissent voter en masse pour M. Tchern Al-Sansal. Soyez chronique culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur, c'est ici même,